bëgg sénégalais yi kontaan maa ngi ñaan sénégalais yi nag ak amateurs yi lu leen Baye Ndiaye def ci àdduna ndax mënut a lu mu leen def ci làmb nañ ko ko jéggal nañ xool ci li mu leen di defal nii lu baax ndax man nag yeneen promoteurs yee ci am ku ci yoroon ku ci yoroon guy gi Ada Fass bisu à part nga koy def. dëgg la ku ci yoroon Eumeu Sène Sa Thiès bisu à part nga koy def. ku ci yoroon Ama Baldé Gris Bordeaux bisu à part nga koy def. ñëpp ngi naan baay moo tey li muy def waaye bëgg bëggal Sénégalais yi ak bëggal amateurs yi la ak respecté sponsor kon lu leen bàyyi mën a def ci àdduna bis dina ñëw pay-per-view du dox wala muy kamaj kamaj yi wala billet yi euh, du baax wala da yu bëri mën na am daal mm-hmm. ndax moog liggéey bay ànd nañ ko ko jéggal te xam ni mën ni leen a satisfaire di leen defal lu baax ndax Baye Ndiaye yi affiche yi muy tëgg nii man de su ma ko yoroon dinaa ko benn bennal korkororal ko jël ko ay yaawu jàll laa ciy dugal guy gi kii yaawu jàll laa ciy dugal dugal ci ay bodi RFM ay samba italien ñooñu laa ciy dugal ñu bëri ndax làmb ji par force day fees mais bu ma jëlee. ama mais bi nga déggee ñu ne euh, Ama Baldé Gris Bordeaux jàpp nañu date bi jël nañ guy gi Ada Fass boole ci te ñëpp xam nañ la géejawaay loolu na nga koo jàngatee. ah guy gi maa koy indi mu daan Ada Fass allah. dégg nga ma guy gi maa koy indi mu daan Ada guy gi Ada Fass ngay de Ada Ndakaaru ngay de. non gi nag guy guy gi lu mu def ci làmb gi war na dépassé sax Ada Fass di ko yëngal. góob moo na ñëw na. yàgg na. kon la yéen amoo na information. non mais dama ngi fi. mais gi. tam dafa jàpp ne guy gi fan la toll ci entraînement guddi gi toll. pare na guy gee ngi liggéey làmb ji moom xaw ma ku mu bettuwaay du guy gi guy gi Baye Ndiaye baat tontu la allo guy gi waaw man maa ko jox man maa woo guy gi jotuma ko Baye Ndiaye woo ko jotu ko guy gi xëy rappelé ma ma ne ko Baye Ndiaye loon woo mu woo Baye Ndiaye Baye Ndiaye ne ko le 30 pare nga guy gi ne ko ay ca wala waxtu bu dajeeg gëstu. Hmm? bu jeune bëgg ngeen combat bëgguñu ko nànk. mais mais nan nga gisee diggante Ama Baldé de Ama Baldé war a dajante Gris Bordeaux Gris Bordeaux guddi bi dafa jekk waaw Ama ku ne xam na ni sama mbër la waaw ba lu faral ci moom loo tax nii waa Liis Njaago yu mere ma waaw te man Pogola ak Liis Njaago laa yemale Liis Njaago mbër la comme ñëpp yenn saa yi damay biru nii rek ci nii pour affaire yi xam nga am coow te Pogola maa ngi koy bëgg mere na bàyyi waa Géejawaay na bàyyi waa Géejawaay na leen respecté bu bàyyiwul waa Géejawaay du baax ci moom de wax naa ko nag mère Kumba yaa tax ma jàpp Pokola nag yaa may woo ma ne ko sa ne woon sa mag laak affaire sa rakk laak affaire yooyu na bàyyi waa géejawaay na génne waa géejawaay ci affaire am bu waree bëreeg ñoom na bëreeg ñoom bu warta bëreeg ñoom na na ci pare sama rakk la sama mbër la beneen bi mooy Ama Balde yokk na yokk liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax lan moo tax ngeen Ama Balde damaa xam ne Gris Bordeaux fu mu nekk nii doole ji mu yor mosu koo yor ci àddunaam ndax Gris Bordeaux dafa yor ñaari géants yoo xam ni ku ci ne Ama Baldé ëpp la doole. Hmm. muy Gris 2 ak Serigne Ndiaye. Mm-hmm. te ñoom ñaar fi mu ne nii dama lay benn affaire Fass dañoo teg benn stratégie bu bees tàq. ak lagros Rose. fi mu nekk nii kenn ëpp ko doole ci làmb ji. Mm-hmm. ma koy waxaat sama rakk sama xarit Jackson. Mm-hmm. mu bàyyiwaat ci xel. Fass fi mu nekk nii kenn du tëbal benn fan entraînement du lundi au vendredi dañuy entraîner. ku tëbal benn yoon entraînement dootoo bëri ci équipe bi Gris Bordeaux mooy jiitu ci école ba quatre heures lay dem quatre heures lay toog ci école bi di daw di daw ba gars yi ñëw mu àndaat ak ñoom di daw takk takk ngemb di contact te Gris doo fi mu nekk nii dafa bëgg làmb ji parce que làmb ji rek duñu wax dañuy waxante dëkk yenn gars yi dañoo dem ba xam ni dem dem bay commencé découragé ci làmb duggaat ci làmb loo bëgg <laughs> fan yi dama gis ne grand contre-poutre bi grand yaa ngi gagné. waaw ndax li Eumeu Sène def Sa Thiès bu ko Gris Bordeaux déggee du ko gën a may courage ci diggante ak li Modou def Ama ak Boy Niang waaw kay te ñoom ñoo bëree ndoo daj lu ne ci làmb ñu leen doon dégg waaw Gris Bordeaux bu ko déggee day motivé wu ñëw pare teg teg teg der gëm naa ne Gris Bordeaux dafa am doole ba yëngal Ama Baldé doomu Fallaay ji man day ah làmb la de. mais dama dégg sax nga ne ma Ama Baldé wu ci. waaw na na gën a pare. ndax lan. parce que daa war a pare làmb ji. dafa mel ni Gris Bordeaux guddi gi toll jekk na te coow li bari. jekk na fu nekk nii daa war a jekk moom tamit te Ama warul ñàkk làmb ji. dégguma nga ne. warul ñàkk li Ama Baldé warul ñàkk daa war a daan jël bu rëy warul ñàkk combat bi. ba pare jàng xeex ndax Gris mbër mu ko tegal pied droit say mbokk fori la. ah waaw waaw ah man de Gris Bordeaux ne dem Ama Baldé ñi ko tegal teg tànk tànk tànk droite moom la koy tegal ndax Ama pay doole lay teg mais man bouse benn problème la am hmm. Ada Fass dafa ñeme guy gi trop waaw c'est normal Ada Fass xale la neer yi day tàng sa Fass ñeme na guy neer yi day tàng normal guy gi ku ko ñeme daa man guy gi mii guy gi guy ku ko ñeme daa am looy yaakaar ci moom rek mais boo xasee ba dag ko di nga xam ne du du du li nga li nga foog du loolu guy gi da ngay fonne bo jàppanteeg moom mom ngi dégg mun ngaa jaar ci tanki yi tanki da yi ak def lii yooyu ngay xalaat mhm. wala daw di ko plaqué ak yooyu boo ci ñëwee nag ngay xam ne lépp dëgg la ku ñeme guy gi loolu tax nga ñeme guy gi mhm. foog waaye boo ñëwee da ngay xam ne lépp dëgg la mhm. waaw mais mais mais guy gi combat bi fan la ko war a toll bu ndax dama gis ne mu ngi bëri benn révélation boo xam ne ni bëri na coow mbooloo mi koy top ci Ndakaaru top benn mbër muy révélation boo xam at dëgg dañ koy bàyyi xel muy Ada tey ji combat boobu guy gi lan ngay lan la Sénégal yi di xaar ci moom rawatina yéen waa Guédiawaye guy gi bu daanee Ada ni la 30 day bëreeg Eumeu Sène kenn mënu ci dara mais nag Ada bu daanee guy gi day bëreeg Eumeu Sène waaw waaw mais loolu yëpp na ah làmb la de làmb toll foofu sama yaay moo may woo de. Ah. interview bi jeexul. mais mais mais lan motax tax nga ne Ada Fass bu daa bu daanee guy gi day bëri Eumeu Sène. parce que ñom ñaar ño sës ni Ada Fass ak guy gi ño sës ci kaw ni ñom ñaar ño sës ño sës VIP. mais guuy kon combat bi ndax yoon na guy gi ñak ko. day déet mukk ci àdduna. la moo tax du yoon guuy gi ñak ko. bu ko ñaké bay lamb guuy gi bu ko Ada Fass daanee day bay lamb waaw waaw. la mo tax nga guuy gi bu ko Ada Fass daanee bàyyi làmb. parce que lu ñedd lamb ji kan lay beurel day dem di bëri ay liis njaago ak ay yii. mu ngi bëri ah. combat bu métti lay bëri waaye yàlla na ko yàlla may ndam te day am ndam guy gi tey mu dee la bën dañ ne Ada mooy xale ba balaa mu jël. jërëjëf kontaan naa ci yow. jaajëf place bi kenn la tijji. allah place yi semaine prochaine inauguration bi fii la. Euh, euh, maa ngi xool semaine prochaine daal dina ubbi pare leen bu affiche yi génnee inauguration bi nag moom. ñu ngi ci woo sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp limuma kenn képp ku seetaan vidéo bi dégg ko rek inauguration c'est ketchup bi yaa ngi ci biir invité naa la géwal géwal yi nañ ñëw xaalis bi dina bari dinaa maye bongo maan yi nañ ñëw xaalis bi dina bari dinaa maye musiciens yi nañ ñëw xaalis dina bari dinaa maye amul lu ma ciy xàjj ak seen ku mën a ñëw na nga ñëw xam ni bis bii sa bis la رستوران بس رستوران